plan ñu wax ci tuuti. Mhm. Euh, li ko gox yi. Mhm. maanaam ce que lui il a de dire ça. Mhm. la justice dafa dafa dafa indépendante war def liggéeyam. yéen exécutif ngeen changer la vie des sénégalais. ci loolu lañ leen di xaar. mais ci la bokk a Mamadou Awa Ndiaye Mamadou Awa Ndiaye ci la bokk. munoo munuloo munuloo tibb xaalisu Sénégal ay milliards nga tëdd ci nga ne doo ko génne. munul est-ce que yéen a ko war a wax. ah maanaam c'est le gouvernement non c'est le gouvernement dans dans un premier temps. moom moo ci war a prononcé wu avant la justice. parce que boobaa dafay mel ni rek la y' a toujours y' a encore la main des ah mais mënu loolu loolu la ñuy yàgg reproché. ñi ñi fi ñi fi nekkoon. mënu ci ñàkk mënu ci ñàkk. waaw ñi nga xam ne nekkoon nekkoon ay détourné gis nga rapport rapport. rapport yi kay li mu war a bëri na mais c'est la justice na mais il faut que Ousmane Sonko wax ko il faut que mu wax ko saisir saisir saisir le ministre de la justice def liggéeyam. Mm-hmm. waaw ah, parce que aussi gars yi gars yi li tëdd dafa bëri président Diomaye Bassirou Diomaye Faye mais nee neen neen woo na leen ci njëkk ne leen xaalis bi ngeen bi ngeen yore mhm. mais ñëw leen ngeen joxe ko médiation pénale médiation pénale boo leen ko joxee après ñu bañ a topp dara mais ba léegi amul kenn ku réagir ah, donc war nañ leen ci njëkk ah waaw waaw amul kenn ku réagir

une semaine ñoom gars yi ñoom ñëpp la jàpp dugal ci kaso bi. loolu mënu ko te forme yooyu ñu si mettre est-ce que du ci lañ ci lañ nekk nii parce que son discours ba tey changé wul ah. waa léegi ñoom mën a mën leen jàpp yóbbu leen directement instruction comme ñun ni ñu def téye ñu fa continuer enquête yi mais Ousmane Sonko defu ko amul kenn ku fi jàpp. parce que bëggul parce que bëggul. bëggul tey ñu ne Ousmane Sonko dafa ñëw rek di fayantu di jaay doon mais justement y' a y' a des arrestations Pape Mamadou Seck foog ñu wax ci. Ah. ba jaxate il a été condamné trois mois de prison aujourd'hui l'imam loolu aussi te Ousmane Sonko la ñu tooñ moom la ñu offensé nee nañu. si euh, tribunal bi retenirul loolu. Mm. fausse nouvelle lañ leen lañ leen condamné. Mm. mais vraiment euh, pour de propos tenus jàppoon nañ ne dootu dootuñ ci jàpp ci jàpp nit. ah mais saaga saaga saaga yaay papa jàmbur. loolu est-ce que yéen ñu ko jàngal. déedéet. waaw parce que déglu rek déglu rek mais déglu rek saaga saaga papay jàmbur. jiñ ay papay jàmbur góor jigéen. mais moom na nekk na bu nekkoon place Ousmane Sonko est-ce que dana bëgg ñu ko ñu koy wax. non mais réew réew mi tamit dafa am dafa am lu ko lu ko sos. muy muy yar ak teggin mënul ñàkk.